muy benen frère bi ma Fatoumata Fouta Tampi tamit génn di def ay manière wax nañ Californie génn pas partout dinaa nekk ni Kali injustice la nekk di dund na Sénégalais yi ah, dañ ko bëgg a ay kii ñi menacé ñi menacé parti au pouvoir parce que mënuñoo menacé opposant opposant opposant yi kenn fi Californie Kaliphone moo dem moo dem violer atus def attouchement ci opposant moo koy conduire en case de prison bu dee ñoom li ngeen di wax noonu yen famille Kaliphone li ngeen di wax dëgg la ci yan Rugi yow miwul yow Rugi mu toog di def di def direct nga ne Kaliphone buñ ko bàyyi lee lëndi dinañ xam lépp dëgg la lu tooy li ci yen lay joge lu wow li karaj karaj bi ci yeen lañ koy deug tamit te lu wara ñoo xoyam xoyam ci muru bi ci yeen neen yow rugi yow APR nga a 100% ma xam ci dara nga febar lol nga waro mëna tal sa bop yow momo di wax nonu sa sa sa, sa frère saga ba mu don saga nday yaay jaamur yi fii ci bi facebook bi ni ñi di doon fayu ci saga nday boobu yow bi ko dëjjee te nga febaron nga nek sa digg sa sa sa digg sa digg febar boobu nga febar lol feebar bu métti ba ni ngay waxee nii sax da nga feebar parce que man j'en sais quelque chose yoru bi danga ko mere woon nga ne bàyyi nga ko adduna alaxira yow rugi da nga taxaw nga ne sa sœur bi xadi nga ne Kaliphone bàyyi nga ko adduna alaxira nga dugg ci téléphone Kaliphone la bàyyi ko audio audio boobu dama ko doon xool mënuma koo gis parce que Kaliphone man dafa ma ko joxoon mooy yow rugi mii génn nii di wax bi ngay mayee sa doom bu jigéen bi nga xamante ne que Kaliphone nee na kooku xaritam la xale boobu rek la bëgg ci sa doom yi do jarbaatam yi mu am ci biir kër gi xale xale boobu nga doon maye xaw ma moo doon takk même loolu sax mun leen leen ko Kaliphone te bii bi Kaliphone yégee ni que ne da ngeen mayee xale boobu mu ñaawlu ko dem di ko jooytu dem di ko jooytu yow rugi da nga def audio nga yónnee ko Kaliphone xamal ko ni que ni même boo dee sa bëggoo mu taxaw ci sa néew waaw wa waxatuma la muy jooy ngir seen yaay bu muy saagalu ci biir Facebook bi mu topp yaay jàmbur di leen saaga ñoom ñi delloo saaga yooyu ba seen yaay ba ñuy dem ba ci ay cimetière di naan dañuy dem uti seen bàmmeelu ndey fu mu tëdd te pourtant ñi def ñaawteef boobu seen sa frère bi Khalifa ñooñu la àndal noonu di Françoise Hélène kooko yónnee woon ku demoon dem di doon wër seen cimetière ndey ak ñoo am na tey ñi def mburu ak soow ngir seen intérêt personnel heure génn wax bu jotee doo leen nangoo génn wax dangeen toog ngeen muumoo yow li la naqarewoon ci jamono boobu mooy ne sa fait que ni dëkkandoor yi ànd jàmm yi xarit yi mbokk yi di leen doon woo partout di leen naan seen frair bi nu muy saagalu seen yaay ci internet bi neexu leen sa mbokk yaay di leen doon harcelé di leen doon kii ngeen jël seen seen rakk bi ngeen isolé ko moment boobu ngeen ko waroon na jàppale taxaw kar declaration bi ngeen def nii ngeen génn ngeen def déclaration bu mel noonu ci kaw xamal ko ni que ni jabari jàmbur yi mbokk jàmbur yi jigéeni jàmbur yi ngay jël ci téléphone ci suuf di leen forcer def leen appel vidéo ñi mastre di leen mastre loo seen bopp nga leen di nga leen di nga téye ko di leen ko chantager ngay def sa kentu lay kattan ba xam ministre fu ñuy dugg fu ñu dul dugg ngay dem di lokkolo ak sen gel yi ak sen ak sen fa di xam di fa jëlé ay information pour téyé ko pour di leen ko santager pour ëllëg dëgg ngeen ko fi santage na fi wax na fi lu nekk ku nekk bo waxé ngay jigen mu ne la yor sa awra yoroon la ni yoroon la ni mu dëkk ci santage pour noppiloo nit ni nga tok ngeen gis gennu leen te téléphone yomb leen li ngeen def ni barki dama njaay gën gën def interview ngeen génnoon loolu ci jamono boobu ngeen ne Kaliphone ngeen a bokk ak moom daag baay parce que yow Rougui yow yaay sa taaw yaay yow yaay sa taaw yaay yow Rougui moo bu génn yow yaay sa taaw yaay Kaliphone Sall sa yaay bu mu génnee àdduna sa loxo la nekk donc yow la gën a xam di ci xale yi nekk fii France parce que xale mu jógee ci âge puberté lañ ko may mayee papam boobu mu takk ko mu indi ko fii mu ñëw sëyal paa boobu yow Rougui yow yaa yoroon xali Khalifa yaa taaw boobu sa frère boobu frère boobu nekk foofu yéen a ko yoroon ak seen papa nga nekkee ko position grande sœur en même temps position yaay en même temps position bajjan en même temps position boo xamante ni yow rek yaa mun a wax dara Khalifa parce que sa loxo la nekk ba nu mu amee 40 ans mu soog a ñëw émigration yow Kaliphone ba mu lay bàyyi Sénégal 40 ans la am mu ñëw émigration mu ñëw fekk si Khady Khady bu ko musaan a gis Khady vacances la jógee fii France mu dem parce que Khady 28 ans la na nekk fii biir France nee na yow yaa nekkoon ak Kaliphone Kaliphone de zéro âge ba 40 ans bu muy bu mu lay bàyyi foofu di ñëw fii France yow la nekk nekkaloon ak yeneen frère am yi fa nekk mu nekkoon ci dérivé yooyu. ngeen gis ko gennu len ngeen def conférence de presse djeg nit ñi opinion sénégalais en témoin xamal leen ni que ni Kaliphone ci lu mu nekké ni neexu len ñepp la saaga Macky Sall moom ngay fëgg sa dëna dinaa nekk ne Kaliphone Sall bàyyi leen ko da ngeen zalu Macky Sall la bëgg Macky Sall la bëgg andal Macky Sall la bëgg jappalé mo tax ngeen zalu ko kenn mësuta zalu and ak Kaliphone Sall ak Macky Sall moom moo nekkoon ci biir APR dem ba ci biir di leen don def chantage financière ñoo ñooñu dem ba ñu maar ñi génnee ko seen groupe whatsapp keroog bi ñu ko génnee ci groupe whatsapp bi la mer mu dem mu taxaw bëgg a doon xotti euh, euh, photo xaw ma euh, drapeau xaw ma photo la doon xotti bu APR yemul ci loolu dégg dugg saaga ndey boobu fekk na balaa muy génn ci biir ci biir groupe ba daf leen tegal foofu bu audio chantage neel waa waa waa groupe whatsapp mouvement présidentiel ñu génnee audio Khalifa Sall yi lu mu leen bàyyil ci ay audio wax leen wax lañ la génnee sa frère waa APR liñ ko guuxal moo bëri ko guuxal moo bëri xamoon na ne que ne dina daanu dina daanu comme moom addunaam bi yëpp ci jigéen la koy moom lu ko métti yëpp ci jigéen la koy la koy la koy fajee moom lu ko metti yëpp ci addunaam ci dundam ci jigéen la koy jaarale pour mun koo faj moo tax tamit ci jigéen la koy daanoom ba tamit ci yàlla ci jigéen la ko jaarale tamit pour mu mun a daanu donc boo leen ñooy taxaw fii ngeen na yéen du du xale bu jigéen boobu mu mu siif xotti ay silipam dagg bin binam seex weenam yi matt ko ci ay weenam yi matt ginnaawam bi yëpp dóor ko laa wax ne ba kooku ba yaram bi double de volume li mu def ñaawteef yooyu yëpp yéen da ngeen considéré ne que ne loolu du ci dara xale bu jigéen bi moo tooñ nag kali da koo yëre moom dafa xiifoon kali dem jëli ko yóbbu ko dem may ko lu muy lekk sa jour ngeen gis nit romb nit ko xamantene ne xamu ko di adama ni awam mu jox ko jox ko jox ko da ngay gis nit tabax keur ba mu mat mu dem jeli nit ko xamantene ne xamu ko ci adama ni awam mu génnee caabi keur ne ko ne dekkal di nga gis nit romb nit mu yëkkati caabi auto mu ne ko jëlal di nga gis nit romb nit mu dugg ba yam fess mu ñoo mu fekk nit taxaw mu ne ko jëlal lii nga yobul ko sa keur di nga gis nit jëndal nit xar tabaski di nga gis nit di jox ay nit ay ravitaillement complet du sutral ay nit nga gis nit jël en charge ay famille di leen fayal seen location di jël waa famille boobu xale yooyu képp ku fay jàng jël leen en charge te du fe di xew fen doo dëgg nit ñi di ko wax lan la nit di ñoo jaloux ci ànd Californie ak waa parti bi te ñëpp xam Californie ci parti PDS eh ba kii kii Benno Bokk Yaakaar ñëpp xamal ko parti boobu mu xëy dem dugg ci parti dem dugg ci biir groupe WhatsApp yooyu di ko nëmbee ñi yemale ko lemale ko bi ñu ko yemalee la mer parce que man yëngu jamono boobu maa moom xaw ma miinantaw ñu woon après la ma expliqué scénario bi nu mu fa demee saaga yooyu lan moo ko indi woon donc mu newoon mi ngi woon ci biir Pastef mu doon saaga des fenn man mi nga xamante ne que man daf ma côtoyé pendant plus de un an man fii ma ne la yow Rougui yow boobu da ngeen di li ngeen di wax nii di ko avancé di jéem a wu du fi jàlla parce que man leen xam ma xam fi ngeen jaar ak seen frère muy saaga ngeen di gis muy poste ngeen di gis yaay jaamur yi jàkkaar nag ñoom xanaa sama yaay di am 90 ans rek ak kooku rek rek rek war naa mën a takkale fan du génn ci kaso yaay Ousmane Sonko nga jéggi sama yaay di ñëw nga continuer 30 kilomètres encore ci biir yaay Ousmane Sonko ba fa nekk yaay ama Amazone yi des uns et des autres yaay patriotes yi de gauche a droite bàyyiwul kenn yaay Macky Sall boobu ngay wax loolu ruggi yow lay waxal ruggi man sama direct bi pour yow la yow ruggi yow yow lay waxal. parce iya que man califon li ma waxal yeb daf man yow la ma waxal mu ne ma rugi keroog biñ ko bi ma sa feebar biñ ko déclarer ni que da nga feebar ba ñu hospitaliser la journée bobu yeb nekkut dafa jambat sa affaire jambat sa affaire jambat sa affaire keroog la la jakk la califon mu di ma wax ci walu am kait fi Europe solo bi mu am mu ne ma xam nga ne buma amone amoon kayitu instant bi ma amone liguey bu normal instant bi damay duggal sama tank ma indi rugi fi ma jël ko en charge pour fajj ko ma ne ko ma foog nga ne réew mi ngi mi ngi ci mouvement présidentiel bi la nekk lan moo tax du dem gis ñoom Macky Sall ak ñoom Marème Faye Sall ñi jàppale ko waa fondation Servir le Sénégal ñu jàppale ko pour mu mën a faju mu ne ñooñu ay ay dañ dañ lay jox ay miet lañ lay benn somme lañ lay jox ñu ne la nga téye ko après le reste yaay demee daw sa bopp may déglu xam na ne man ma ko sosal dara moom mun na génn mu sosal ma te bi mu ko commencé gis na ne que ça ne va pas marcher avec man parce que man kenn du ma sosal man sax man muumoo ma dàquma wax man je l'ai bi ma koy xam 29 29 abonné la amoon ci page ma jël ko yóbbu ko ba cent et quelque mu bew ma bëgg indi ay kawe mañ def ndey page mu wàccee ko man lu ma taal su ma neexee sotti ci su ndox mu fay te su ma la tooñul boo ma tooñee tamit yàgg-yàgg di ko gis yàlla dina atte yow rugi moomu mere nga ko fi ngir saga nday yoy ñi doon saga seen yaay di posté seen yaay kéro bi nga gisé sa photo yaay nga gis photo papa ñi tek ci ay montage bono bona bona bona bon bu ñaaw jour bobu sa yaram daa yëngatu ba ñu hospitaliser la nga génn ci fièvre bobu nga ñëw sa yaram xaw a xaw sa doom bu goor mo doon tak xaw ma sa doom bu jigéen nga maye won mom koku doon xaritam dafa na doom bu jigéen la lolu bimu ko yëgee jour bobu dafa fièvre nga tek ci audio bimu démé di laaj dé compte pour xam lan motax lii di am ci biir famille bi tey ngeen xam diggante moom ak xale boobu li nga ko ci teg ci audio bi bi nga ko ko joxee journée boobu yëpp dafa nekkut nga xamal ko ni que ni boo dee bëggoo sa mu taxaw ci sa ci sa néew bàyyi nga ko aduna bàyyi ko àllaaxira ngir lan la nekkinam bi mu nekkee ci biir Facebook bi allo. wàññil live bi ngeen fi ngay dégloo noonu live bi kuy woote da ngay wàññi fi ngay dégloo live bi noonu ngay wàññi s'il vous plaît pour ma leen jël. dese jar na sax ba jëlaat nit ma daaneel ko nii rek après ñu tàggatoo n'est-ce pas jaratul may jël nit jarul woote nga xamal ko ne que ne même boo dee buggoo mu taxaw si sa néew sa dara dootoo ko yëgalati te même chose la tamit xadi tamit def fii France ba jabaram bi bu mu koy waaj a takk man mi nga xamante ne que naa jël sama yaay di ko doon posté man man la tey comme jigéenam li mu manqué la woon yëpp ci xaalis bi ñu ko doon laaj maa dugg génne journée yooyu may woo ay nit yoo xamante ne mun naa leen woo ci laay bii bu ñu nangoo ñu ñëw ñu témoigner rak-rak ñu préparé ko enveloppe ku nekk 100 euros 100 euros 100 euros ji dajale ba mu baax def enveloppe jox ko moom mii moo dox ak tànkam dem jëli 100 euros dem jëli enveloppe bi yaa ngi mu toog ba mu des ko day mu desee ko encore pour matal sista xaara xaara ma jël la ci opérateur bi xaara xaara sista dinaa la dinaa leen jël xaara ma jël kon ña ñaari nit ma def ko fii ci uffeur bi xaar leen voilà ma jël leen ci uffeur bi xaara ma jël ñaari nit ba ñett sista maa leen di ñëw jël ah ñi woote nii ñi doon woote yëpp o oh, ñoom Ablaye Touré yëpp ñi doon woote nii yëpp ñi doon woote nii yëpp ma jël ma jël ma jël ma jël ma jël leen ma jël quelques personnes yow Rougui xam nga ko frère am boobu di wax di menacé. salaamaaleykum maaleykum salaam sister. ñu lay ziare di la jox sa wàccuwaay amee ren maa ngi ci jàmm alhamdulilah. ñu ngi ñu ngi dolli kontaan yow man de maa ngi lay wax ne benn bu ma la bëggoon. tegal la ci juróom-ñeent muy fukk. jërëjëf. j'adore entendre la vérité. xam nga xam nga situation bi tey mënoon nga cee profito mais profité woo ci lii la nit bu baax di def. lii nit boo ko bëggee da nga koy wax dëgg. keroog ba muy def sa photo yaay fii yow wér na la man wax naa Khalifa. loolu dara ump la. waaw. ba man ci ci la ci ci la ci la jaaree bloqué ko. wér na la naroon naa nekk victime ndax fii lay jël xale jigéen di leen santaas su guddee mu lay woo pour waxtaan naan la jëlal appel vidéo solo ak nangam. man bam ma ko waxee wax naa li ma ko toog dama koo teg ci place am tey xale yu jigéen ñi ñooy jënd yëreem ñooy jënd dàllam ñooy jënd léppam ndax ay chantage yu mu leen di def ak si seen wàcteur fan lañ nekkoon di di saaga yaayu troll di di def sa yaay ci ci internet bi di jël Macky Sall ci ni président même buñ ko bañee mu di ko jël di ko daggal li mu ko wax moom kese Assane Diouf mi dafa saaga ci Afrique mësu koo wax li mu ko wax Jean Wacem fan lañ nekkoon frère am bii tey di bëgg dënnam fan la nekkoon ma nañu bàyyi naafekk Sénégal lu ñu dal naafekk moo ñu ko teg Kaliphone dafa yayoo prison daf koo yelloo tey jii même bu dul dafa violé xale jigéen luy ndey xale jigéen defaru ba jekk dugg sa oto nga dem yóbbu ko ñëw mu ñëw kanam bi sol yi bâtiment loolu est-ce que ko teg et lu ma gën a metti maire mu ne def ko dara comme que viol amul def ko dara mais kanamam bi noonu mu toll yaramam bi màcc yi pour lan la loolu fan lañ ko teg man moo tax ma ne même bu fekkee ne Gadiaga moo tax ñu tëj ko jërëjëf Gadiaga laay wax ndax musuma ànd ak moom musuma déggoo moom du ko tax dégg wal moo tax keroog ma déglu ko mais mhm. même bu dee moo tax ñu tëj ko jërëjëf même bu dee deux minutes la fay def man Khalifa même bu génnee lundi je suis déjà content parce que daf doon wane ne mënu ma tëj mhm. nit ñi lëmbe Facebook bi lëmbe Facebook bi kii laaj nañ bu ko bu ko jigoonee bu ko jigee woon nii dinaa am man lu ma bett gis nga làmmiñ du jig làmmiñ bu rayul semmal ñoom ñoo waroon a jóg ci seen doom même bu li jaree sax ñu dem wuti ji ku ko takkale wax ju bari ji ñu def ko mais tey defuñu ko ba ñu ndox ko ci kaso bi ñu génn di wax mais tey ñoom bu ñu xoolee Facebook bi rek war nañoo rut ñëpp ak naan leen ñun xamuñu woon ne Kaliphone am nay mbokk xëy ñu bëgg a toog di amerde nit ñi naan dañuy santaat nañu santaat ñoom xamuñ ne Macky Sall xolu xeer la yor ku koy santaat te mu bëgg a def li muy def ci sang fou ndax xam ne bu dee affaire Adji Sarr la ñëpp xam nañ ne lii c'est des détails donc yoonam nekk ci ñoom ñoo waroon a wax seen rak dëgg wax teg ko ci place am xamal ko ne lii muy def du dëgg ci Californie man bu doon sama frère la ba muy jël valisam di ñëw Sénégal dina ma jaral sax fay xale bu jigéen mu sàccal ma passeport am ba parce que ñoom lii waroon nañ ko ku nekk ba France di def li muy def am fitam bu ñëwee Sénégal doo ko fotowoo ak Macky Sall ak jabar am danaan bu ma ñëwee Sénégal toj ko ñoom lii waroon nañ koo xaar waroon nañoo xaar nii rafetlu naa sa kàddu bu baax ni mu turee nag moom ci laay jeexalee gis nga li wax sànq saa tey bi laax dangaa seddal sama xol bi dangaa dugg ci sama kër bi rek di ma waxal. ni mu turee buñ ko moytuwul kàddu gi ñuy dugg moom moom moo ñu fay dugal. ñoom tey patriote yi lu kontaan mooy ne moom nee na troisième mandat mais ministre yooyu ñoom dañoo fàtte barki démb la doon campagne parce que ci campagne yi dégg nañ mu wax troisième candidat bi. waxu ko de. musu koo ŋaañ. ko man man de musuma ko dégg. gis nga bu meru woon ba mu ko jëkkee wax ba mu meree la woon bii tamit bi mu koy waxaat bi mu meree la buñ ko moytuwul kàmb gi ñuy dugal kenn du ko xam. dama la ne Mimi Touré mooy deuxième mooy mooy mooy première femme kaaw ma kii. madame Faye Sall mooy deuxième femme. depuis à la fin lépp laa <laughs> nañ koo dégg Ousmane Sonko na moytu na moytu ñii mu nekkal. Mhm. ñii mu nekkal ay ay potonu mbóot lañu gis nga bu leen moytuwul nii ñu ko def ci ci bi nga xam ne tey moom moo ko waroon a moom su moytuwul noonu lañ koy defaat deux mille dañ koy puus nga mën a waxal yow yaa am fit bi yow moom am nga ay ay ay xale yoo xamante boo wootee dinañu génn del wax. gi nga dem ba nga wax ba mu ëpp. xaaral ñu tooñ la nga am dëgg. bu génnee sax day mel ni comme si dafa demoon tukki ñëwaat ñëpp nangu ko. waaw mais nag ci mais non ma ne li nga wax yàlla na fekk rek mu ngi toog di seetaan laaj bi na xam naa même bu ko seetoon tataar ñaata mu ngi toog di ko seetaan dina ko wax. dina ko dégloo dina ko dégloo dañuy dégloo dañ koy dégloo. dañ koo nar a dugal ci kàmb te ñun ñun ñun patriotes yi dañoo nekk léegi ay fanatique ñoo raw boo ne Ousmane Sonko rek sa yaay ñu ngi koy daggal du ñu déglu wax yi moo tax sànq bi nga ne borom xel yi laay waxal wax bu am solo nga wax. parce que tey jii moom moo ngi dévié de moo ngi dévié moo ngi dévié te baaxul ci moom ndaxte Macky Sall kàmb gi mu koy dugal nii xamul sax fa mu jëm ak ñoom ay kaymaan lañu ay garabu ngóot lañu bu ñu moytul billaahi dañ ko koy suyal te bu ñu am nag fii rek nekk ci naan dañuy naagu ku naagu daagu de te ku daagu sa morom da lay raw. c'est que ñoom moom xam naa ne xamul sa liñ koy ne ñëlee dañ koy bëgg a wax ni que mun beewal yow am nga droit beew parce que am nga am nga ñu nekk sa ginnaaw dañ leen ne bàyyeekul ci wax yi moom ñoom ñu ñoom ci yenn diir moom ñu koy ruux moom muy génn muy muy beew beewlu parce que affaire yi yow loolu lay niroo ngeen jëggal ma ci kàddu dama ne la Facebook bii ñu nekk nii Facebook bii ñu nekk ku bëgg Ousmane Sonko ba mel na yow xam politique xamuma woon sax nu ñu tudd su ma bëggee pro tey ba nii ma si mel benn waaye dama ko ko doon expliquer mu ne ma déet comprendre ma da bëgg wax euh, Fatmata Danko moo tax nga nga nopp ko la lool de dama ne la Fatmata Danko dama koy sant ndax moom moo tax ma bëgg pro ndax moo tax ma am pro te xam naa ne du ma ci benn du ma ci ñaar kon tey yow amoo loo ñuy justifier pro li nga ko jox ci ay nit benn doomu aadama ci Facebook bi jox ko ko te ni nga ko bëggee mooy mbëggeel ndax mbëgg nit day du tee nga wax ko dëgg du loolu du wàññi sa mbëggeel dara mm. ndaxte tey jii même bu la dégluwul bu ko ay mbokkam dégloo bu la bu la ay mbokkam dégloo dinañ ko ne lii ak lii ak lii lu wér na te li nga ko wax fii tey amul dara lu luñ ci mën a tekki nag ñun ay patriote pire lañu suñu xaalis suñu am-am ñu ñuy saaga ay ndey guddeeg bëccëg démb moo ma ci mujjël ban démb te commentaire daggal ma ci loo xam ne sama papa ba ca yow mal xiyam dama ko muñ à cause de kat à de ko bëgg grâce à yow kon yow ca kaw ca kanam tey nag gën naa laa bëgg bi leer man damaa bëgg nit bu ñemee dëgg te doo ci xool ku la saaga doo ci xool ku la ku la wax leen jërëjëf merci beaucoup sister jërëjëf donc gars yi euh, mën naa leen mayaat encore quelques minutes de toogaay ah ku bëgg a woote rek nga nga dugg si xaaral ma jël ñi ñi doon woote te gisuma woon seen woote bi ok ma jël kii xaw ma kan la maa ngi woote nii au pif appel manqué yi laa nekk di xool nii bi ma doon live nii ñu bëggoon na dugg ma xool ñan la ma jël leen ok kii kii na peut-être qu'il est occupé il a rejeté ma jël Ablaye Touré Ablaye Touré maa lay jël gis naa Ablaye Touré tamit woote ku ma woo rek ma la jotul rek kii jarul ngeen may message ah man du ma lire message sama biir live ah da di dugg Tell don't know what the kind. He. Nata. Get out, please. لكن دي ميرا باني الو بيس نعم الو سبا ما عندي دايركت بيه يا جدع عندي دايركت بيه waaw maa direct bi laa doon seetaan. waaw kon ñu ngi lay déglu bisimilah lan mooy sa contribution. allo. soo ma jël keneen. waaw salaamaaleykum. allo Fatoumata. oui. maaleykum salaam sister na nga va bien merci. alhamdulilah. ah maa ngi lay déglu boobu ba léegi kontaan naa ci sa intervention. jërëjëf. sa intervention rafet na. jërëjëf parce que nga ne. mënoon nga ne da nga nekk euh, comment ça s'appelle parce que doo intervenir par rapport ak le problème de Khalifa Sall. mais vraiment intervention rafet na par rapport ak sax situation dëkk bi ak suñu gouvernement. parce que lu toll na de la république. lu toll na président de la république. yokkal kaddu yi tuuti si sa.

mais le président a voulu parce que il voulait même savoir lii ku ko amul xel ku nekk war nga xalaat ne président li mu récolté à juste sa raison parce que saa yi ëpp na. dañu wax ne président dégg nañ ko lépp dégg nañ ko le monde entier dégg nañ ko. nga ñëw ba ci day jaay journaliste yi réewale di leen jaay ne yow mii ah ñoom dañuy ñaa dañuy soxor ay corrompu lañ ci mais mu ngi ko ko parce que problème ci nit koo xam ne. dañu wax nga daggal leen saaga ndey. nga yéeg de non man damay jaaxal sax yii wax nga naan yow nitu dëkk bi rek am nga ci day am nga ci bàyyi am nga ah? seetaan ba xam fan nga jëm mm-hmm. yow nag kaay ma wax la nag xale bi jigéen bii kaay ma wax la taw na jour boobu nee dafa taw taw bu métti mm-hmm. ci biir taw bu bokkee sa oto nit ki mënul wàcc pour dem koo yuuxoo kenn la dégg ma ne gis nga taw dafa xabi naa jéem a xool raay na ko wala raay ko kooku. ñii di woote nii. kooku amul suñuy jaar kooku amul suñuy jaar. bay bi nga def ko xàttal. démb la lendemain nga yeewu yóbbu ko ci SDF ne ko bul ko wax sa xarit. mais il est kii nii moom mooy kan. il se prend tout il se croit tout permis ah. il se croit tout permis il se croit tout permis. dama la ne dafa waroon ñëw ci ñi am maturité boobu allé xam ne dootu ko defal mais jël ay xale ndaw di leen ah.

ñoom ñëpp a réew parce que man mën naa comprendre frère tooñ ñaaw la ñu def rafetul mais la moindre des choses man ma demandé pardon sur le plan national et international. waaw konoon ne yaay surtout nga jur ay doom yu bëri. ku ñu xam ne ñu xam ne mais li ngeen xam bu ngeen ko waxee bu ngeen ko waxee seen gàcce la ñoom li ñu xam bu ñu ko waxee seen gàcce la. mais nañ ko wax nañ ko wax. ñoom bu ñu ko waxee ñu lokk leen ci kaso bi ñu dem fekkee ñu seen franc foofu. non dama la ñu du du ñoom dañu jox ultimatum bu gouvernement. waaw ak madame ab Macky Sall la. waaw ñu ne ko ba léegi bu génn la ñoom ñu wax. waaw comme ñoom ñoo am sutu gaynde bay wax. ñoom dañoo am sutu gaynde bay wax. Mhm. ñu génn nag wax. ba indi man bu damay ñaan rek président ak jabaram nañu koy war a téléphone foofu ñu xool ñoom lundi lan la ñuy def mais ñii dañu impoli ah.

mu yónnee ma mu yónnee ma pour prouver ma ne que ne que ne moom dafa rajaxe foofu. ci whatsapp bi la la commencé di leen sarkaal. dëgg la wax yow boo tëddee nelawal xam nga tax ma naan la nelawal. Kaliphone uh-huh. yëpp a ko suivre A ba Z. A ba Z Kaliphone ba muy saaga boobu dugagul ci Pastef boobu ñëwul ci yow Kaliphone ba mu ne ci pop xasa commencé dagg saaga nday bi. naa leen mi ngi nii naa ngi ci dëkk ba maa ngi nii di kii ma ne waa kii moom ay nit sële bi kii moom nii la mel.

ça sortie ça sortie ça sorti de de de de de de de de comment de Benno Bokk Bakar. non santage yi mu def ci vidéo nous ñu fait, ñu non dafa daf ko daf ko daf supprimer parce que man dama saga, Macky Sall ma lii saaga mu saaga noonu la dernière fois boobu moo mujjee boobu moo mujjee de mais première saaga bu mu saaga noonu bu muy génn ci bu muy génn ci Pastef boobu nekkut bu muy génn ci ci ci ci ci comment dirais-je euh, comment s'appelle euh, Benno Bokk Yaakaar ça n'a rien à voir yow saaga bi ngeen mujjee dégg noonu ba muy naan ñoom Sara Diémé Macky Sall day kii nii boobu moo mujjee première saaga bi mu leen saaga ci groupe WhatsApp bi la a dem santage fa bàyyi fa ay saaga patapouf yoo xamante man nag ci Sara Jémé boobu nag ci laa tombal. ci laa ñun ñëpp si lañu tombé te loolu ci base am la ko nekkee. moom tas na këru jàmbur. merci moom tas na këru jàmbur ba pare sax ah. man bu doon Sara Jémé dinaa dolliwaat beneen plainte ci kawam. est-ce que est-ce que tegul plainte est-ce que Sara Jémé sa bokkul ci plainte bi. parce que ñi ko plainte Sénégal ñoo bëri. képp koo xam ne Californie saaga la la képp koo xam ne Californie saaga la la jëlal plainte nga dolliwaat. ak santaas yi ak santaas yi ak santaas yi di woo jigéen ñi di leen di leen woo appel vidéo di leen euh, euh, di leen di leen kii di leen jëlee par le sentiment par le sentiment d'amour di leen ma di leen di leen naan ñi defar seen bopp ñi affiché seen bopp. da nga bëgg da nga bëgg a dégg da nga bëgg a dégg dëgg. da nga bëgg a dégg dëgg. man ñu di wax ak yow man ñu di wax ak yow daan naa intervenir ci émission am ne ko il faut arrêter d'insulter et commenter commenter li nga xam ne ci développement lay dem comprendre nga. mais day bàyyi ba ba coupé laay tam. yónni ma message ah yow moom madame yow moom ah xam naa sa jamono moom ma ne la kii xamul boppam de <laughs> ma ne ko oh, booy sa morom man du ma sa morom li ma la magee fas mënu koo daw mais mais xale bi xamadiwul mais xale bi réewul xanaa Macky Sall lu mu doon doon Macky Sall président Macky Sall xanaa lu mu def def def loo xam ne sax neexu ko mais yow yow yow yow respectel bi président bi respectel titre boobu ah ah jërëjëf titre bi respecté ko Keren. Nilai kita bidil ko bako weko sur le plan international ba parler bako. Hein? Il est qui et pourquoi? Et ça prend pour qui? Il a quoi? Il a aucun. Quand tu n'as rien, tu n'es rien. Il y en a qui font des menaces minières comme ça gratuitement. Je la comprends. Abu mana la comprendre. C'est pas du bon. Janguyu. Janguyu, janguyu. Tampi, jangu, jangul. Parce que ça me donne. Il y a des gens qui sont là. Ah, ah.

parce que ñu dañu xamat waaye yow dañu réew. jërëjëf c' est du waay ñu ay illettré lañu. jërëjëf. téléphone xamul dara xamul aani wala ñu béy jàngul jongul ban bi ma ne seen dërëjëf ma ne la kii kii c' est un c' est un c' est un c' est un ñoom béy seen. jërëjëf alors le temps d' insulter les gens tu peux pas aller à l' école. merci. ah merci sister. vous faites les cours du soir. c'est un imbécile celui-là. jërëjëf merci c' est gentil. merci merci ciao ciao merci. ma jël ma jël ndax de ma jël la ndax de maa lay woo. Nalewo, ni ñi may coupé nii di wote ni, bu ma nekke bu nit nekke ci whatsapp ngay ngeen di wote ci ci direct bi damay obligé mo raccroché leen au nez te du rafet ci yeen da ngeen di mujjé jedd donc da ngeen di déglu nit ki bu daanalee après ngeen wote ma jël leen Ndeye salam salaamaaleykum amazon bu mag bi. salaam Fatoumata ma lay nuyu di ziar. dina la delloo ziar di jox sa way waaw man dama duggal pour wax ci Mimi néna Mimi Mimi xawma tan la yapp mimiku tonton mimiku mimi mimi mimi Touré mimi Touré suñu kon nekkul ci moom ay gisuñu ko parce que nit ki mënoo am sa fulla fayda ba ba nga ba nga xam ne bëggoo sa dëkk gis Macky Sall conneries yi muy def yëpp mu toog di ko dëggal di ko dëggal ba Macky Sall weer ko comme géej bu wow muy dox dof lu ñëw ci ci wax ni lan la ñuy wax mimi lan la ñuy wax mimi dafa bëgg boppam xam-xam bu mu xam bu mu am ak jàngam a njëriñ bi yow boo amee xam-xam nga jàng te sa jàng doo ko jaarle si yoon respecté ko ba ngay ba ngay porté serment bañ lay jox sa diplôme ba porté serment serment boobu respecté ko yow est-ce nga sa bopp est-ce que respecté na boppam mimi tey sax lay wax sénégalais yi mimi Macky Sall lu mu duul duul seen mimi na dëgg la affaire troisième mandat mimi toog tey mimi bëgg a wax lan ñoom ay kaymaa la yu seen biir ñoom ñooy lekkante seen biir foog ne ne ñun ñoo koy jàppale mais kan mooy dox sénégalais ba naan day jël ci doomi mi na gis nga mini nañu may jàmm nañu xam ne sénégalais kenn dox ci kenn dox ma ne ko takaa mimi ku daa réer daa gëlëm non non mimi kan la yëpp non man sooy wax mimi sama xol day tàng kan la yëpp xam nga xam nga yibaate tollul nga jàpp ay sénégalais lu mel ni dëkk taj gisi ay dox waaye seen affaire la lu waaye def sa bopp nañu xam ne ñun Sénégal kenn dafatu dañoo am xel ñuy ñuy fonctionner di réfléchir di def mathématique ah ku foog ne nag yow moom ci intelligent ba foog ne yaa gën a yàlla mii ñu sax cerveau bu la defal yow Fatmata moom la ma defaral man wallaay keneen yow mënoo intelligent ba nga ne maa gën a muus day xadi koy def da def sa bopp la neex nga nekk di wax sa bopp waaye fii intelligent wu ci kenn kon nag mi mi moom nañ koy paqueté fële teg ko fa ñun ku bëgg Sénégal da ngay wane sa bopp waa yaa fii di wax dëgg dëgg bu jotee nga wax ko nit yi di ko gis ku fi duul ñu xam ne da ngay duul ku fi fen ñu xam ne da ngay fen ku fi sàcc ñu xam ne dañ la sàcc te duñ la may dara nag dara luñ la mbul lañ la dul may loolu moo fi jeex loolu moo fi jeex ku liggéey ku liggéey yàlla fay la liggéey rek ay fay parce que bu ñu deful loolu kenn mënul nettoyer Sénégal mais xoolal xoolal ce qui se passe au Sénégal ah ma wax ci Californie aussi nga nekk fii di saaga nit ñi di yuuxu di wax di wax ku la bàyyi xoolal yow d'un seul coup Californie mu sa diggante yow man sa dama waar man sa dama waar. ba nga ma wooyee lan laa la wax ma ne la pourtant de daf ma woo pour ñu live ma ne mu fekkoon ma feebar. ma ne ko mënuñu laay mu ne may foog ñu genn même bu dee do yag rek nga def ab de présence pour won sénégalais que ni ma ngi yow malgré limay saga président Ousmane Sonko ma ngi yow jotewuñu dara ma ko loolu moom mënu mala ko koo mu insister insister ma ko du ma la ko defaral mu tok ba yaga yàgg yónnee mo audio di menacer war na yéen jot ngeen jot ngeen mu audio yi ah di ma menacé ma foog ne que ne ci lay yem avant grande surprise xale bu jigen bi genn ni moo ma woo mu ne ma Kaliphone daal la gis mu mu posté sa photo yaay man kéro lu genn ci man bobu ma ngi feebar ah mu fo mu posté sa photo yaay woo naa ko nee naa ko mu génnee ko ma ko posté sama photo yaay ma ne ko est-ce que bu ma posté sama page la jël mu partagé mu yóbbu ko mu ne ma non non ngi ne sa sax ba nee ni que ne da lay ñoo laay ma ne ko non kii mënu maa laay bal. àxira jàpp naa la duma la bàyyi sama sœur adina claxira <laughs> jàpp naa duma la bàyyi mais activité bopp ah seen bopp la war a won seen bopp a c'est quoi le problème yow da ngay gis ñëpp dugg sa commande ci ñu dugg di la saaga ñoom ñooy kan fii ku mu neex saaga ndey mais on n'a pas les mêmes valeurs. wallaahi. fii ci sagalu fi kenn toujours ma wax ko on n'a pas les mêmes valeurs ah ngay jëkk nit ki nga ne yow boo yuuxee dugg dugg laaj nit ci dañ lay ragal mais pourquoi ñu lay ragal. vraiment. mais parce que on n'a pas les mêmes yow da ngay di saaga yow boo duggee di saaga man jombi naa di saaga mais c'est pas parce que j'ai xamante. gis nga ku def lu bon yàlla fay la lu bon yàlla nelawul yàlla moo ngi toog si nit ki loo liggéey moom ngay récolté ah moo ngi nii tey ngay saaga di saaga ba dem nga dugal sa bopp yow yaa ngi toog fii amul lu mu wax Ousmane Sonko tey yàllaa ngi nii ah nga nit yi bàyyi seen xel gis nga activiste yoo xam ne da ngay toog nga pen pour rien du mu neex la rek nga pen nga inventé ngir xaalis ñoo xam ne dañoo jaay seen dignité ngir xaay Fatmata lenn rek maa la ko seedal te je très fière de toi. Mhm. merci keroog ba nga def sa direct loolu laa la wax nee naa la gis nga femme de valeur nga femme de valeur nga man maa ko wax dëgg ñëpp dégg. jërëjëf Ndexate. da nga ci liggéey ñu ne da yaa tey da ngay laaf tagatuwoo fenoo. Mhm. da dem di laaf sa laaf ngay daan sa doole am ci sa salaire. Mhm. yaa ngi liggéey yore sa kër yore sa oto kan moo la ñëwee. bu nit yi waxee genre ñoom bëtti laa fol laa nga xam ne duur rek moo ko tax a rëy dafa foog ne nit dañ ko ragal ah man bëtti moom saa yu waxee rek xadi sóoli xadi sóoli man sa merde bëtti moi je suis pas peur de toi ah man je suis pas toi boo toogee sa ginnaaw écran ngay duul di fen di dajale ça c'est ton problème moi je suis pas peur de toi moi je suis Amazon sur le terrain man fii France ku fi toog bari xam nga ne man Amazon laa may wàcc yow ba nga ko wàcc kenn mosu la gis fenn kenn mosu la gis fenn boo nee Ndeye Khady Sodi man du ma sa morom demal uti sa morom moi jamais avec toi loolu ngeen tàmm ngeen nekk di fen activité nañu bàyyi di fen gis nga nag daara ñoom bétti ñoo ci des gis nga fii ku fi fen bés yàlla dina la weer comme géej ñoom Kaliphone ñoo ngi nii tey moo ngi nii ñaanalu ba leen loolu yëpp wallaahi moo baax kan moo baax nit ki booy wax waxal sa diggante yàlla ci dire la vérité ñun combat bu ñuy mëne aujourd'hui mooy dire la pour le futur du Sénégal loo tax Sénégal tey ñuy lekkante ah. ndax xaalis nañ la jaay na xam naa ko de bieboo nga fier di diñ parce que kenn jëndewu la xaalis nag. wallaahi Californie doon woo ñee ñëpp dañ la bëggoon jënd xaalis. wallaahi kenn mënu la jënd kenn da nga fier nag da nga fier sa tête oh te nit yi nag téléwél di lay déglu yëpp war nañu xam loolu dañu xam nañu kenn du la jëndee xaalis te loolu mooy différence lu tax doo morom jaay. ku mu mer nag jaar ñoom bëti dañu dee rek comme ñoom bu ñu yee mel ni dëmm moo raw dëmm di lekk nit di wax waxu ni toujours la même chose les gens t'écoutent même pas boo xoolee sa bopp doo def sax douze euh, xaw ma douze bi quinze bi nga xam ne yaa un problème donc maa ngi lay passe sama benn tamit mu wax ci Mimi vite fait rek d'accord merci beaucoup Ndeye Khady c'est gentil merci waaw salaamaaleykum na nga def waay maa ngi fii sëñ bi na def maa ngi leen di ziar maa ngi leen di la delloo ziar di la jox sa wàccuwaay bisimilah. waaye man daal dama ci wax tuuti laa ci wax. waaw ñu ngi lay déglu bisimilah. mais mais kii nu mu tudd Touré. xaw Touré. nanu may jàmm. ñun suñu xol nekkul ci moom. moom def def na fi ay tuuxi doonam. ah meqat ci Sonko ah tàggat Sonko.

Yeah.